may mun a autorité Sénégal yi bi affaire bi xewee naka lañu réagir à commencer par le président la République au-delà de li ñu xam maanaam li ñu bind parce que journaliste politique la bu connecté wu ak monde politique yan réaction nga gis ci ñoom ñëpp ko mettitlu euh, à commencer par le euh, président de la de la République ba ci ba ci suuf euh, ñëpp a ko mettitlu le président m'a témoigné son, son soutien et les autorités ont promis euh, de faire tout ce qu'il faut pour, euh, pour tirer au clair euh, cette affaire-là. Euh, ministre de l'Intérieur ñëw na euh, ak kilifa yu bari ñëw nañ ñoo xam ne seen ndombal tànk la ñu ñëwee te mbir mi concerné leen ñëw nañu waxtaan ak man sans exception nga xam ne ñoom ñooy kilifa réew mi yëpp euh, ñoom ñëpp naxarlu nañu ko euh, ñenn ñi boo leen gisul liir nga leen euh, mbaa nga mbaa nga dégg leen mais les plus hautes autorités de ce de ce pays là m'ont témoigné de leur soutien m'ont témoigné de leur solidarité et c'est et c'est réconfortant mais du du du autorités sénégalaises yëpp ce sont tous les Sénégalais ce sont tous les membres des partis politiques toute obédience euh, toute obédience confondue euh, parce que euh, man euh, chapelle politique yëpp laa amal jàmm euh, am na ñoo xam ne sax maa ñoom sekk nañu loo xam ne publique bi duñu ko duñu ko duñu ko foog donc képp kuy sénégalais ñëpp sénégalais yëpp ko méttit lu bugguma nekk euh, di di def différence euh, parce que mbir bu amee ñëpp waxandoo d'une même voix euh, booy remercier da ngay remercier ñëpp waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom laa sekkal mbir mi di waxtaan ak ñoom ci politique sekk ak ñoom jàmm di waxtaan ak ñoom ci actualité di waxtaan ak ñoom ci kii ci ci li nga xam ne moom mooy li xew-xewu réew mi ñoom ñëpp ñoo ko ñoo ko méttitlu ñoom ñëpp ñoo ko naqarlu ñoom ñëpp ñoo ma témoigner seen soutien soutien ñoo xam ne sax xalaatuma woon euh, attention boobu am nañ ko à mon endroit et encore une fois damay damay remercier ces personnes là et puis damay euh, remercier aussi euh, les autorités sénégalaises à la en tête de file le président de la République Macky Sall ak ñi nga xam ne tamit